Mbàkke Kajoor jàkk jaa ngi nii pencu Mbàkke Kajoor bi jàkka jaa ngi nii macha allah macha allah waaye nag eh, mu nekk ci soowu bërëb bu am solo bërëb boo xamante ni mooy fi ñuy wax kër gu mujj gi muy. armeel yi kon nag jóge nañ ca néeg ba nga xamante ni mooy néegu Cheikhul Khadim bu yaakaaru jaam yi nga xam fa la nekkoon di maanaam muy néegam ci dëkk bi moom muy jóge fii dem ca maanaam ngi gis Bamba fa suñ Maam Mor Anta Sall nekkoon di jàngale foofu ak a ñëw fii ci néeg bi waaye nag def ci jàkk ji nga xamante ni dina daan jullee waxtu juróomi rëdd ko ci sànk boppam doon fi jullee waaye gis ngeen ko ko wax loolu lépp war a wax kër gu mujj gi muy fi nga xamante ni euh, ku fi jógee wuy suñu borom fa lañ lay yóbbu mu nekk nii ci euh, penku armeel yi mel na ni bërëb bee ñuy jàkkaarloo ci biir mu ràññeeku ne Adama mi nga la waaye bi sëñ bi wootee mu bokk ci ñu ko gën njëkk a gëm maanaam bi fi jógee sëñ bi nañ ko denc fii mais nga xamante ni moo si topp nee ca biir xam naa ni nañ fa yegg mooy bërëb bu sëriñ Mbàkke Kajoor mi nga xamante ni moo sanc dëkk bi ak waa këram allah yàlla na suñu borom yokk seen i ngërëm taal seen barke barke borom tax xas yi mbokki yi Kajoor yaa ngi nii gis ngeen ko nii armeelu Mbàkke Kajoor yi ni ñu ko waxee woon bërëb bii ñuy jàkkaarloo nii mooy bërëb bu sëriñ aadama Gueye yàlla na suñu borom dolli ay ngërëmam te taan ci parkeem sëñ Mbàkke Kajoor nag moo nekk ne la ca wàlla incha allah rabbi bëgg nañ faa yegg ko mbokki taalibe yi te siyaare ko bërëb bu sëñ Adama Gueye bi moo nekk nii sëriñ Adama Gueye mi ñuy wax ne moo njëkk a jébul sëriñ Tuubaa bërëb bi moo nekk nii macha allah fii ci armeelu Mbàkke Kajoor yi yàlla seen borom yeesal seen i ngër ak seen i ndam te taal ñu seen barke fàccanu a ci